mbokku internet Iba Kane TV yi tey dam leen andil uh, IFRA ñu koy wax IFRA bu Ama Baldé ah, kii tey bëgg naa teel tey mu wax ñu relation ak Ama Baldé moom ak Ama Baldé kañ la ah la ak naka la IFRA nuyu naa la. grand maa lay fay Iba. xam naa yàgg naa laa rëbb de waaw mooy loolu xam man complexe la <laughs> loolu lu may wax si bariwul mais lu tax yow am la jafe yombul non liggéey bi nag moom liggéey bi tënk nag quoi liggéey bi moom xaw a tënk bu baax a baax Ifra Ifra ak Ama kañ la kañ la commencé ànd ànd bi non loolu yàgg na yàgg na mu masal ñu si tuuti non loolu yàgg na loolu daa jiit suñu judd ñun ñaar ñëpp parce que ñoo xam ne yéen a judd noo yaranoo foo noo waaw suñuy parents yi xamante mhm. duñu way làqu duñu way ñëw ñu foofu noonu rek dëkk fa ñoo juddandoo yarandoo foodoo màggandoo. waaw benn famille la mën naa wax man moom soo ma xoolee mm. rek ku ma xamoon si jur la ma xamee woon. waaw dëgg la moo sama père moo nekkoon sama lépp. Uh-huh. su ma daan jàngi sax. mu uh-huh. si ëpp moo daan yóbbu may dem di jàngi sama papa la sama lépp la. Uh-huh. waaw dëgg la. waaw ma judd tamit fekk su mu nekk xale boo xamante ne moom tamit. xale bu a ànd la su baaxee yéen la su bonee yéen ay magam lañ ñun mooy suñu mas. waaw bu ñu ñaan la woon quoi. dëgg la Ama ah, xale nan la meloon. terrible. sérieux sol yëre bëre rek. ah fekk <laughs> bëre rek. Ah. <laughs> waaw. Ah. Ah, mais xale bu yaru la musul dugg si daray caaxaan. waaw musul dugg dara lu ñàkk fayda. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw xale boo xamante ne moom macha daal. kon ñu yàgg nañ am si moom yaakaar. Mm. yaakaar boobu moom moo ñëw ba. kon Ama ban âge la Ama. waaw xale bu am xale la am. ma ne ban âge la amoon bu muy commencé am dugg mbapat. non am am ay 15 ans yooyu fekk na mu commencé am football sax la njëkk a def am. ah football. waaw football la doon njëkk a def am pour te dire combat am ak Modou Lo. waaw dañuy indi avance. waaw ah. fekkoon moom mu fubali moom fekk temps yi nekkul mbër. temps yi nekkul mbër. parce que soo rappelé ko. Mhm. Modou Lo booy jinne la waroon bëri foofu jinne di bëri ak Assane Faye bu force tranquille bu force tranquille ñu dugal fa avance bi. Ah, ah. gars yi da dugg génne mu jógee football dugg si salle bi jox leen ma ma dem bëri ji. Hmm. lii moo indi mu jël avance boobu noonu. ñu yaa ko yóbbu ñoo ko yóbbu loolu comme sànq si si man. mais mun mun nga ñu si mosal tuuti nan la demee woon bi ngeen di dem yéen ñeneen àndoon bi ngeen ñun Cheikh Ndeye Diaw. waaw moo ko yeboon si Mercedes papam 190 jamonoy 190. waaw Cheikh Ndeye Diaw ak suñu benn yaay bu ñu wax Constance ñoom su koy bari woon nañ. waaw bari woon nañ de. Uh-huh. ñëpp ñu nekk xale yi te yóbbu boobu ñuy dem 3 heures si làmb ji Modou mu ngi ñëw si làmb ji presque 22 des 22 heures 22 heures. Uh-huh. su ma juumul lendemain bi la bëri Babacar Diallo mu fas. mu fas Modou Lo. Modou Lo Babacar Diallo. comme uh-huh. bëri aama noonu. waaw si lendemain la bëri Babacar Diallo bu Fass parce que jour boobu sax je me rappelle sol benn blouson tigo. ak benn unique bu weex si digg géew bi la ngeen bokk. mu muurloo. voilà soxlaa yi dina ko wax. combat boobu Jos mu uh-huh. fàttali mu ah. fàttali loolu comme ça nga suuf si. kon combat ban la mu wax Modou digg géew bi la ngeen bokk. digg bi. mu ngi sol ay claquettes. waaw sol benn blouson tigo. benn t-shirt unique bu weex. si digg géej bi la taxaw ngéem. ngéem instant boobu Ama Baldé waaw waaw ama xale la boobu ama ñu toog si benn grand xamoon nga Dame Colobane. Dame Colobane mel moo ko jëndal brioche. waaw mun a lekk dëgg boobu xale la boobu xamul dara si lam boobu musul boobu lay njëkk a takk ngéem moom pour bëree. loolu comme sànq si suba si moom. waaw combat ku fa arbitré woon. waaw nga si xel bàyyi woo si xel fàtte naa ko mais image yu bëri daal muy ñëwaat si man bi muy ñëwaat si yow waaw bi arbitre bi sifflé nu mu demee non dañoo bëre dañoo bëre bëre bëre bëre bëre bëre nañ nag bu yàgg damay dégg léeg-léeg gars yi naan combat bi dafa gaaw dafa lii mu ne yow coup de filage la ko def wër ko ndoom téye ñaari tànk yi ñaari loxo yi kan moo coup de filage mu wër loolu coup de filage ah mu wër ko ndoom fekk ñu ngi bëre si suuf waaw Modou Lo wër ko ndomb. waaw wër ko ñaari loxo dugal ñaari tànk yi xam rek xale ak mag. waaw bu ëpp expérience yi dugal ñaari tànk ñu arrêté lamb. ñu arrêté lamb ñu jox victoire Modou Lo. loo koy. ñu jox victoire Modou Lo. non Ama Baldé def muy ñibbi. non looloo ko def mbër. Hmm. combat hmm. mu ne damay bëri naa fa mbër. kay di entraîné ji nag. Hmm. entraîné. waaw commencé lu mu dem ba Fatick nag. commencé ama ji nit ñi woon gëm mhm. ama nit ñi di ñëw nànk nànk mhm. bëre ay làmb tugalóor fee gunaas waaw bëre foofu bëre ay mbabat nag commencé nag mhm. waaye di bëree foofu noonu bëre ay ñoom Maguette Seck ay ñoom Zos numéro deux parcelle waaw ay combat yu ay combat nommé temps ay combat yu nommé yu ay boy fii nii ay combat nommé yu métti ay làmb ay ñaari yaar. ñoom ah. bëri woon nañ ay combat yu bari. Mhm. non ñoom mbapat dafa teexoon na macha mais mais damay dégg ne Ama Baldé ak Boy Niang bëri nañu mbapat bu ndukër. a bëri nañu loolu la woon. mbapat mbapat mbapat du mbapatu nome de. waaw mbapat tournoi la woon. waaw Jules Baldé mi moo xaar. waaw uh-huh. Boy Niang daan ko. Boy ko nu ma juumul si suuf lañ bëree. waaw boo ñaa yokk ko. waaw boo ñaa yokk ko. yokk ah. après Moussa ñu bëri ñoom ñaar. non non non non uh-huh. uh-huh. benn mbapat lañ tasewaat. ginnaaw marché. waaw seen père de Gaulle. waaw ak Abdou Baaxu. Mm-hmm. def yëpp kilifa. ñaar yi war ñëw war ñëw bëri. waaw ah, après si la loolu na. loolu jeexee li ngay wax léegi dama la koy confirmer am na ku ma jël góorandooy. wax na lii nga wax nii loolu la rafet. loolu non nee bu fekkee woon premier combat boobu. du am non dafa ne père baaxu ñëwal boo ñaa Modou Gueye ñëwal. waaw xama taxawal. boo ko fàtte hmm. mu. wala ne lii xaju fi. te hmm. Fallaye Baldé kër booy. déggoo waruñoo def nii. ñoom ñaar ñu ànd fecc akolaatante. jeex foofu la jeex. Ama Baldé jël yoonam booy ñaa jël yoonam. ku nekk dem nag yoonu Ama Baldé yomb na ba fu muy àgg tey nii ba. ba war a yoonam amoo yoon bu métti nag la bëri. loolu bu méttee métti métti la waxal parce que nekk na xale boo xamante ne néewoon na jàppale si làmb néew na jàppale jàppale si làmb waaw tey da gis léeg-léeg ñu di naan waaw mbër bi am na lii mbër bi am na lii parce que mbër boo xam ne da fay xaalis sax ay propres moyens lay demee mm-hmm. dafa néew jàppale li nit ñi amul ci am mm-hmm. amu ko woon amu ko waaw yaa ngi comprendre ñëw tey ñu ne la ñoo defal li ñoo defal li ñoo defal loolu moom mosul nekk ñoom ñoom bëree taxaw yaay ay carte soutien grand ko ñu jàpp si maa koo nekk si leen géré après dem yàlla may ko ndax ñëw toogaat ay ruqam kaay dem diw may la lii mu ne la yàlla baax na waaw moom mosul bëgg dem si benn autorité di ñaani teer su ko defee rek gars yi force nañ ko ba mënatula ba bëggul nit ku ko mere soo xoolee da ngay dem far force mhm. koo xamee ne mer nga da ngay jóg da ngay dem dëgg eh, Ama Baldé ban combat ko def mbër moom ak Ness la wala moom Malick Niang non non ama premier combat mu guy gi moo ko def mbër. premier combat mu guy gi. moom nees xale la màggul. màggul xale moo ko yóbbu. waaw ak nees daan na mag damaa war a daan nees. bonne chance la ñëwee. waaw mais <laughs> ama guy gi moo ko def mbër. koy vidé. moo ko def mbër parce que yow yaa mën yaa ëpp doole yaa feesal stade bi yaa bàqu yaa def lépp. nga ñëw daanu. nga ak moom. Hmm. si la jógee nag nekk mbër ba faw. si la gisé si boobu laa gëj a déggee ama muñal ama guy ki 2012 si la gëjë déggé déggee muñal fukki at ken du oragul ci kaw dëgg la am maa ngi ñaan aw maa ngi ñaan toog nañ ñi fajet bi ne mari ngi ñaan mënu ma yëng am ba muy woot promoteur am nay promoteur yu woon di Mali Niang saa kees jox leen Mali Niang dañ ko ne da ngay xaru. ñu ngi bokk si oto jour boobu la waroon dem. waaw guddi gi. Mhm. da ko da ngay xaru. waaw wax ji yàggul affaire mais après. Mhm. tout va aller jeex na. Mhm. combat bi bu mu koy jël tiito en âme et conscience. musuma tiit si mhm. Ama day jël combat. man ma ne damay tiit. wallaahi du caaxaan. mais kon Tapha Tine tiit nga. non non non non xam koo xam. koo xam ak ku bis ñeme. bokk na koo xamul. wallaahi du ma si tiit say làmb. wallaahi la si du ma si tiit. Ah. aw su ma naree dem si combat xaw ma ne damay tiit moom mën naa dem toog sama kër. sa dernier combat moo yóbbu Papa Sow la woon 2018 nga daan Papa hmm. yàlla def nga war a daje ak Modou Lo Modou Lo moom seen seen vengeance boobu bëgg ngeen ko ba léegi de revanche boobu. waaw hmm. ah, làmb la du revanche. di ah. nga nit ñi jeeruñu xulóowuñu rayantewuñu. làmb la rek. Hmm. day ñëw Modou Lo day feebar yàlla na ko yàlla mooy tamit jàmm yaa ngi comprendre mu jóg eggale entraînement ah, ah, yaa ngi comprendre ama dafa ak Modou Lo waaw su wéree dañ bëre mais waxuñu waxu Modou Lo tey Gris Bordeaux la ñuy wax mhm. ñu ngi ñaan yàlla na ko si yàlla may ndam mhm. sedd guy mhm. mu eggale rek rek Modou paree rek ñu bëri su fekkee parewul yeneen adversaire yaa fi Modou Lo rek du adversaire léegi damay dellu ginnaaw tuuti ñu bëri dañuy ne Ama investirul yow mi nekk ak moom Ama mu ngi investir si ay kër poulailler wala jardin xam nga tey nit koo xamante ne doo def sa benn affaire dof da ngay jël naan mu am naa lii am naa lii am naa ah. amul jëmm bu toll moom yor ay jabaram ak i doomam xam mhm. ba jàngu jotee daa paasal ay jabaram ak i doomam dem leen ñu jaañ mhm. borom xel la mhm. lu lépp nag la nit ñi di wax ay comprendre su investir moom la su investir moom la parce que nit doo bëree yenn centaine de millions yooyu doo investir ñii nag dañoo mën di def di wax ñii mooy mën def di moom yaa ngi foofu la rek man mi lu ma am ak lu ma ñàkk kenn du ko xamal yaa ngi comprendre am na genre nit ñoo xam te noonu la lay yàlla mi mhm. yare ñoom seen famille xamoon lu ñu am ak lu ñàkk seen bopp moo leen ñor seen ay làkkat mun na mel mhm. mais du tey da ngay def lii da ngay def lii ñi koy wax ñëpp nañ liggéey ñoom luy investir te bàyyi investir yu jaamu mhm. am am na xaalis ñuy sant yàlla parce lépp lu mu bëgg a faj faj lépp lu mu bëgg a faj faj uh-huh. ñuy sant yàlla bu baax Gris Bordeaux Ibrahima Diop. ah dama ah, ko yàlla may jàmm. dama ah. ko dooleel ko. Ah. ñëw bu ñëw si fair play ñu jàpp ko daan ko rek. ku nekk rek. jërëjëf sa mbër ñëw na loo koy wax. comme d'habitude rek lii la tam lii la xam. lii la xam jërëjëf mon frère. <laughs> ok.